yàlla nañ ko yàgg a daje jàmm di ko sabu jotaay yu mel nii yàlla ci yàlla jaar sàmm suñu réew mi naam Samba Diop te def ci jàmm sàmm ñu def ci xéwal nuyu naa ñi ñu nuyu ñëpp tey dafa am lu tax mu وإن المساجد لله لا لغي نين يان يالله سنو برو مؤمنو باخي بجو تخولكو لك لسواي جام يالله يالله بو يالله تخول بجو سنو سنو سنو سنو سنو سنو jaamu yàlla lu mu bari bari lu mu néew néew la am solo may la yàlla nangu rek yal na yàlla nangul te yéen tam yàlla bàyyi leen fi soo amee mag mu baax danga koy ñaanal mu wér te yàgg السلام نعم، كم بلان بل ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه موضع كن يبل بسنو سرين بسنو رسponsable المورال بسنو وسيلة يارنيو بري تقلن جو يور شيخ محمد المصطفى سي bu sunu maam Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum bu sunu maam Serigne Babacar Sy bu Cheikh Seydi Hadji Malick ba am njaar la Serigne Moussa dafa ne dem leen ca jàkka ya fekk fa ñëpp dem leen ca jàkka ya fekk fa ñëpp te kenn yóbbu leen fa muy yàlla képp kuy dem jàkka na yàlla tax keneen ku mën sax ku dul yàlla maa gharraka bi rabbikal karim moo tax sëriñ bi nee na yéen waa daayira bi daayiratul mustarsidiin wal mustarsidaati dem leen ci jàkka yi fekk fa ñëpp te kenn yóbbu keneen koo jaamu ku dul yàlla sooye perte وما أمروا إلا ليعبدوا الله مغلق من له الدين سيدنا محمد لم بغلب من قجامنا من قجامنا أبسرين كان دو قجام من قجام رأي ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر sëriñ bi nee na boo ñëwee ci néegu yàlla bi ñaari rakka yi nga jëkk julli mu tudd tahiyatul tahiyatul masjid wala boog tahiyatu rabbil masjid tahiyatu masjid Cheikh Sidi Mari daa bind téere tudde ko aadaabul مسجد دافا ام كومبورتمان يو خامني موم لا نيو نيك تي نيغو يالا لول ليغ مو روس مو نيو مو نياك امنا ملكان وخام كوكو ملول بو ديك تي نيغو يالا اي اي اي اي دان اكي تورو نغا فاي جيل اي دوما جيل يو ولا سيرين بي نيكو كي تي نيغو يالا دي ñaar rakka yi ñu jëkk julli ci sérieux correct ci yàlla di xool ndax jar ngaa recevoir wala jarul laa di farata ñëwagul mais ñaar rakka yi rek ngeen nuyoo néegu yàlla bi rek nuyu borom néeg bi nuyu waale ci doom moo tax boo taayee ba sëmal daan ne asalaamaaleykum nuyu nga ñëpp ndax yool bu bari ki la yàlla di xool baax ndax jar ngaa rus yu bari léegi boo fa demee xale yi du ñu toog toogin bu ñàkk teggi bu jëkkati ak yenn mag ñi toog ci néegu yàlla ñu di la filmé malaaka yi dañ lay filmé dañ lay enregistré malaaka yi dañu لأن الآن سجوا سيدنا محمد تبان أعمالنا يوم الخميس له ويوم الاثنين في صفاء الدين ما مولى بني لو تقوم أجل إمام كيف كن يا إمام دكتور جرب إمام مومن نجي يلا للموت يالا سلنا نيت ني سل نانيو امام لا جدي دنت خام نين سي قران تود فيزيك فيزيك خام نيم الا موي امام لب لو خاو موي ديكو سافي مودا امام يدم منا ياكو مروتيكو ووتر كينن غايا بن مين بي امام بوجو لم ياكو ديتي بكرام رك mais benn paa tàllal loxaam laal kenn rek ku ko ñëw taxaw place am ko dem di téye ba kanam mel na kuy bori ndax rek suukare moo tax Serigne Moustapha nee na imaam bi muy taxaw nu mu tudd ci arab mihraab nee na xarab mihraab mooy xeexukaay fi ngay xeex Serigne imaam taxaw di xeex ak bakkanam di xeex ak seytaane di xeex ak ñu bon yëpp ndax baatamaay imaam bi ñàkk nga nekkal rek jaamu yàlla buy servir borom moo tax bu taxawee foofu bu yëgee ne may imaam bi di ci yàpp moo tax mu xeex di xeex seytaane bañ koo jëm loolu du ci yàgg en tout cas bii ku fi ñëw teg ñu borom suñu borom neena ah yeen waa dëkk bi ku ne samp sa kër ngeen li ngeen ma sédd man li ngeen ma sédd ñu ko waaw kon nak man jël naa ko en charge ma fi bare na loolu ma mo la ko bind si daaji mali ne bar na ko julli ba bañaaw sa ya. ko waru a weex te musulaa julli ku ñu validé وقد يشيب ها عارض الإنسان ما أكمل السلام للرحمن قالوا رب لولو ما هو مجد سرانتا ما سرانتا جن جل باهو بيجي إذا خلولو بس كبلي كم يجي نامور خلنا نقول نام فرد جل نال ما يسمي نال ما يمرد خم يجي هذا أنا جاي رك sunu maam Cheikh Ahmad Bamba Abdoulaye Talla bind na ko ci téere bi tasawudu saxaar ma nga ca maa ngi koy jàngale xool leen ko diine kenn du lamb nag imaam yi am nañu part de responsabilité imaam yëpp du ñuy jàngale dañuy waaraate rek koo seen mosu jot ba salaam wala xabla salaam lam bàyyi du farat parce que koo bàyyi julli yàqu waaw ñun ni ñu mën a fexe ba nag ñu ngay jiitu ñëpp maîtriser loolu da nga koy étaler tey nga jàngale benn farata bu leer nañ bu gannaaw suba nga jàngale beneen farata muy ñaar balaa six mois nga mën lépp loolu moo ko naan di doonoo doonoo suukara du baax baaxalaat déedéet ilimaan loolu du rorom maire maire du ko baaxalaat préfet naan na ma déedéet yàlla jiitu dafa am lu ñu raison d'être eh mu mel ne kon tey néegu yàlla boobu moo tax suñu soo yebal ñu ndeysaan imaam saar bi mu tari bu yàgg woon danaa ci ñëw attention dëkk bii nu nekk nag tànneef la santar la mag ñi fi ñëwoon dañu amoon basira ñi nga janoog di ñëw ëllëg moo tax Oustaz Babacar moo tax maa ñoom ndax moom ah def naa xasida bu neex bi nga ko gisan sax mu firi ñu ko bis si xale man mën koo jëriñoo bu baax a baax a baax ndax dina ko laaj nag dëkk bii nu nekk ku fi ñëw ku ne war ngaa mën na waat ni teg nga sa tànk foo xam ne Seydi Hadji Malick jaar na ko noyyi nga ci jaww joo xam ne Seydi Hadji Malick noyyi na ci سوف سي باركيالنا نيالو لي باركيالنا انت كلامي ديو خام لول موتا مان دا ماي ريك يا تربتك نسلت بها الاجداد يا تربة نزلت بها الأجداد وترعرعت بسهولها الأولاد وتبلجت أنوارها وتشعشعت نجم الهدى تنتابها الأمجاد والعلم بل واليمن في جنباتها بعد طمع تصفو به الوراد فهنا ترعرع فهنا تربع منهلا ومعلما حبر الأئمة ذهبه الإمداد آثاره لا تضمحل نتائج فنجان ينثر نورها الأحفاد ونفع عليك شيخ الحاج مالك علي فعليك شيخ الهادي مالك في العلي رضوان رب قل له الايجاد ماما يا لول موي نان بيرم نجي بو خا ني نيو نجار سانتر لا دو فورماسيون يري فورمي ارواحي دي فورمي اجسامي دي فورمي اخلاقي سانتر بو فورمي روح دي فورمي جمو دي فورمي ديكو bind nañ ñaata nit la formé fii tasaare leen yenn yàlla fay ci aw yiw bu dootul jeex moo tax eh, bala moo yàgg dangeen gis yu leen yëm ci wàllu yiw ah mu des nag diggante oustaz alhaaji عثمان عمر مين ديغا مستري مصطفى من 1989 لا انا مو فياج ني ريف مارو ديف ليبي ديف يان يف ميني سان غاني فيك انا بو سا بابا غير فيك اك نينا بابا لي نو نيا نو نات ني بروم خم خم بو تابي تي خم خم خم خم ام كو يوم انا صاح waaye am pédagogie bu ko mën a joxe moo yombul moom la maam Maodo amoon na si daal di Mali daara joo ma sa dem dafa am bi ak kuy jàngale bi ak bee daara Cheikh Sidi Hadji Malick moom képp mooy jàngale matière yëpp loolu du may ah waaye kii ko mayul ki ñu may ba mu exercer ko mayee Oustaz Amar amul kenn ku dul Serigne Moustapha ñeeni waaye am na ku jar am am na ku sérieux ku honnête ku correct koo xam ne du waru mukk Serigne Moustapha lu mu sëq nit ñi ci yàqu yow waaye moom du war moom mii toog Serigne Moustapha jox na ko إجازة من مقدمة مني سيا ما يرد يب يرد سيدا شامتين الشريف بس أقول مكتوم تاج إلى ممد كل أولياء الرحمن من نجر كنت آه سوى إجياء على موي ما في وقت أنا قد وقت أنا قد أستاذ عمر تفني من يسمت سيد مصطفى جيبوك من فيها لبخ man waaye mi ngi santaale waa daayira bi yëpp daayiratul mustarshidin wala mustarshida seen taxawaay collège su père yi collège su maire yi adulte yi kale yi ñëpp bayiwul kenn neex ah sant nag koo def yàlla fay la ndax Seydina Muhammad dafa ni ñaar àjjana lañ jëm ko ñaar ñan mu ne ash-shaakir wa saabir fil janna ash-shaakir wa saabir fil janna kon ñun sunu sunu gisu tey bi barkeel na yàlla nañ ko jëriñoo ñu fi ñëw ñëpp yàlla nañ dellu ci jàmm ku fi ñëw yàlla nga yokk ba yëg ni yokk nga sa diine sa adduna sa wàllu métier lépp ah yàlla day joxe rek day maye rek waaye nag boo bëggee ñu may la donc ba ñuy mayee taatan ca ba taw waaye bu taw ba bàyyi nga door a indi sa taw bi génn ay occasion li yàlla di maye yoo xam ni benn bu ci nekk rek ak njëriñam te maam Xalifa Sarr Abdourahman ak Serigne Cheikh mi nga xam ni man dem naa tey ba seeti ah si mu dem naa seeti góor gi Parce que j'étais 1976. 1976, on a fait 6 mois. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dem naa tëggi ndogi dem naa jëli saati dem naa sim lokumba dem naa dem naa fu bari monsieur di góor ga nag tabaarkalla bi la dëkk nag mooy sëñ Tontu <laughs> kon foofu sii di boobu mu la raw balaa def yal na yàlla mosali yëpp maam Xalifa Saad nii ak mbokk mii di ci Moustapha ñoo bokk Cheikh Sidi Hadji Malick waaye moom mii nag mu amaat beneen xas sunu maam Serigne Babacar Sy moo jur yaayam waaye soxna si Malick bokk ci mbokk ndey ak baay mu jur papa moo tax ànd ak moom suñu la du wanewu du tiitaru du wane ak cëriñ nekkub taalibe di daw rek <laughs> dama ma fi lay jeexale dafa am bis si Moussa yabal yabal yabal maa moom Dakar ñu génn mu ne ah man de waaye buñ nee buñ fa yàgg waaye ma mën a noppalu ci bu bu ko yàgg ñu départ ba keroog foire bi rek Cheikh woote daan ni sëñ na na imam jëm moom rek maam xel dana ñëw yow dañoo war a fanaan ku bëggoon noppalu ñu ne kenn loolu boo du ko nangu perte la kon nag boo àndi ñu yàlla da ki nangu lay tëj. ci la ñamale yi ba jamono yaatuwaat ñu ngi gërëm ak sàng ñu ngi taxawaayam ku neex a àndal ci cadre commission de l'enseignement et de l'orientation islamique sang yu ko kenn la ci moom kii dafi mos a dénk lépp li collège bu muñ koy Oustaz Babacar Diop Oustaz Sidaat Sarr sunu mbokk ma rahmatullahi alayhi wa abdaaw mu dem ko lépp di enseignement mu ànd ak Oustaz Mor Diop ànd ak Oustaz Mouhamed Siis rahmatullahi alayhim jamiian fu dem ñu topp <laughs> yàlla war na ma koy démb rek koy moor kon nag ñu ngi leen ndokkeel di ndokkeel imam ndokkeel chef bi di ndokkeel waa dëkk bi jàkka ji daa war di fees ndax naa fees nekk ci dëkk bi dëkku noddu nga xëccal sa mbàjj di nelaw seere sa bopp suñu boroom sax na ba kenn ku ne am nga compte compte courant wa wajadoo maa amilu xaadira wala yasum rabbuka ahada sa compte boobu loo ca nekk yaa ko ca def كنا واقفين سكوت نجاك جلسنا رتا ما سنين ذلك جلس كل لول نجوب نوا وقت الله قتلي اللهم لا ذر لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا خوفا الا امنته ولا مريضا الا شفيته ولا عدوا الا قضيته ولا فقرا الا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا خضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وكن لنا ربي في كل الأمور ضمن يكن كذلك يلقى اليسر يلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين سيدي مصطفى سيامنا في اكتوبر